mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ndax ñun si rajo Rewmi FM nañ koy defee dimanche bu jot fii ci émission Rewmi FM gox bi tey nag euh, di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Adja Coumba Souna Dieng moom la ñuy dalal tey ci émission gox bi di la sant di la gërëm bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo jëm ci disponibilité bi ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk auditeurs yeeg auditrices yi. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu auditeurs yi ak auditrices yi di nuyu Sénégal yëpp particulièrement maa ngi nuyu waa Parcelles Assainies 7 ba 26 askanu Parcelles Assainies yi li nga xam ni moom moo jëm ci élection euh, locale yi gox ak goxaan yi moom la ñu nar waxtaanee ngay euh, li nga xam ni moom moo jëm ngay mbër buñ ko mënee wax noonu nga samp sa nënd ne tey li nga xam ni moom moo jëm ci mairie bi tey loolu nga soxla euh, laata ñuy door ci émission bi mën nga ñu wax kan mooy jëmm ji ba pare askan wi ñu bari mën a comprendre yow yaay kan. waaw man Kumba Suna Jeng laa tudd dëkk parcelle depuis quatre vingt nekk fi yor fi sama kër nekk fi sa yor fi sama njaboot liggéey fi yu nekk nag parce que déjà man bi may soog a toxu ci parcelle jaay naa fi beñe jaay naa fi marché jaay naa fi syndicat lépp ngir bëgg a teral sama njaboot. te duma ko wuti fenn Coumba Suna mi di wax ak yow PDS la depuis 74 musuma dem fenn PDS rek la mës a bokk ba ma juddoo ba tey ma nekk fi nag secretaire général de la section femme depuis 92 nekk fi euh, euh, conseillère municipal depuis 86 nekk fi euh, boobu ba léegi conseillère municipal la mandat bi rek laa nekkul conseil municipal euh, bon euh, ak yeneen ak yeneen am naa fi ndomba tànk yoo xamante ni liggéey naa fi ci ay ministères. ci nguuru Abdoulaye Wade euh, liggéey naa fi nekk naa fi conseil économique et social nekk naa fi sénatrice deuxième questeur du Sénat. tey àdduna di dox nga tey bëgg mairie bu Parcelles Assainies. waaye laata ñuy ñëw ci sa bëgg-bëggu mairie bi am na ki nga xam ni moom moo yor mairie bi Moussa Sy def na fi 14 ans ci li nga xam ni moom moo jëm ci mairie bi tey boo doon natt di évaluer liggéey bi nga xam ni def na ko ci biir Parcelles ni lan nga ñu mën a wax tey ci gestion wala bilan Moussa Sy ci mairie bi. xam nga loolu nag boo ma ko bëggee laa ci dëng maa bëgg réeral ndax ku nekk ci mairie 14 ans soo bëggee xam bilaam moom nga war a woo. laaj ko lan mooy sa bilan. yow mi itam dëkk ci gox bi am nga ci droit de regard. waaw am naa ci droit de regard mais je suis très mal placé pour wax bilaam man soo ma laaj su fekkonte ni maa nekk place am nga laaj ma bilan dinaa la jox sama bilan. lan nga gis tey ci moom doxalinam ci mairie bi. doxalinam ci maire bi daal gis naa muy xëyee ko gont ci maire bi jegewuma ko nag kon gëw ma ni dinaa mën a xam lan mooy moom lay liggéey ci maire bi lan lay liggéey ci maire bi. waaw Moussa de dafa mel ni nee na am na bilan bu baax de yow ci sa gis-gis. ndax ah. parcelle am na yokkute. ah man de parcelle na ma ko gisee woon ba léegi dara dara changé wu ci. gisuma ci dara lu changé de. parce que tamit te fii laa dëkk dew ma fenn fii laa dëkk maak sama njaboot. xëy na bu amee lu changé tam ah bu amee lu changé tam da bariwul. waaw xam naa ne daal gis naa fi centres sociaux yu nu toj. te fii la xale yi daan fooye fi laan daan jànge euh, ràbb di fi jàng ñaw di fi def ay judo euh, di fi def kung fu di fi def euh, théâtre ñiy def théâtre fi lan daan defee seen répétition ainsi de suite ainsi de suite mais malheureusement ñu xëy un beau jour ñu toj ko biñ ko tëjee amu leen benn explication ci tojin bi am na ci benn explication ñu daal dañoo xëy rek gis bulldozer yi di toj waaw xamuñu ci leneen nag xamuñu lu mu ci nar xamuñu lu mu ci doon def xamuñu pourquoi mu toj ko ñu ngi la dégg yaa ngi wax ne parcelle de ba nga xamoon amul soppiku. Mhm. kon donc ce qui veut que 14 ans parcelle dafa gën a dellu ginnaaw. ah en tout cas daal bu bu bu jëmee kanamit waa waa ñu dëkk ci Parcelles Assainies moom fi seen kër ñoo ko fi def parce que li ma fi gis daal ci parcelle. mooy étage moom moom soppeeku na ndax bari na ku ci nekk daal yaa ngi xëntee am sa ñaari kës R plus 1 wala R plus 2 loolu de daa fi gis lu changé ci parcelle. mairie bi doxalin gisoo dara loo xam ne sa bët am na soppiku niñ ko yoree woon ak tey. Ah, xam naa daal man daal lu fi soppiku daal gisuma ko wax dëgg yàlla waa Moussa mi ngi vanté wu piscine def na ko fi transparence ci wàllum doxalin ci biir mairie bi itam nee na loolu am na fa yow safaan ba nga gis. piscine bi de dégg naa ko man de gisaguma ko waaye dégg naa ni am na piscine fii ci sapeur pompier yi. Euh, transparence bi nag xaw ma ci dara parce que gisuma bilaam nit ki dafay communiquer ak ay ay ay ay nitam. su par par exemple bu fekkonte ni lépp lu mu def mu mu mu communiquer ak nit ñi nga xamante ni ñoo dëkk Parcelles Assainies mu ngi leen di liggéeyal bu keroogee dina xam. communication amul kon. ah gisuma ko gisuma ci communication. bon dañuy vanté wu ne parcelle am na yokkute tey ñu ngi fi tabax ay stade yu demee noonu ñu ngi def ay pavage ci yenn. Euh, quartier yi. xanaa yow soxna si xanaa kon gisoo liggéey Moussa si bi. ah pa pavage de gis naa ko fi waaye pavage bi gouvernement bi la de. gouvernement bi de mooy pavé. mais nag pavage yi man dafa dafa mel dafa féete boor nag. am na côté nag yoo xam ni gouvernement bi pavé nan ko. fii gis nga sama kër ni mel. sama sunu mbedd yi man de gisuma pavage. xanaa da nga far beneen boor bi moo tax nga yaakaar ni def ñu fi pavage. de wallaay faruma benn boor man fi ma mës a far ba may kumba suna ba tey foofu laa far muy PDS. PDS laa nekk. parti démocratique sénégalais ci laay nekk ba ba may dee du ma mës a transhumé du ma mës a dem feneen waaw am en politique nag am na ñu naan dañ ni kenn du war wax jamais mais man maa ni jamais. parti démocratique sénégalais. rek donc kot. Mhm. léegi tey euh, li nga xam ni moom moo jëm ci euh, émission bi itam. Mhm. Euh, yow da am yéene. Mhm. jiite li nga xam ni moom moo jëm ci commune bu Parcelles Assainies. lan mooy sa yéene tey ci Parcelles Assainies bu njëkk lan la. lii sama yéene ci Parcelles Assainies mooy damaa xam ne jigéen ñi danoo sonn sonn nanu fu sonn yam jigéen ñi amuñu dara seeni doom liggéeyul gorunu yettunu mbedd moo boo jaar bala ngaa génn mbedd ma di nga gis juróomi groupe yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi toog fa nga toog yor sa attaay di naan loolu nag laa bëgg mu dakk noo ko ci ci ban fànn nga nar a teg loolu dakk ci ban fànn laa ko nar a teg mooy xam nga boo mënoo yor maire yi te ni doo liggéey gouvernement ndaxte li nga xam ni moom nga soxla gouvernement moo ko yor gouvernement moo yor jeunesse bi gouvernement yi moo yor santé gouvernement moo yor lépp loo xamante ni maire bi war na ko mën a liggéey boo yoree maire yi da ngay jóg xar sa tànk tubéy seeti ñi nga xam ni ñoo la war a dimbali muy la gouvernement ministère bu ci nekk am na compétence boo xam ni yow mi nga xam ne yaay maire am nga droit jóge fii ci maire bi dem ba ca foofa ni ko man kat sama maire bii nangam ak ki nangam lii bëgg naa ñu dimbali ci gone yi bëgg naa ñu dimbali jigéen ñi surtout jigéen ñi nga xamante ni bu ñu xëyee 4 heures du matin la ñu yeewu nekk dem ñii nga dem marché poisson ñii ngay dem marché Gueule Tapée ñii ngay dem Seras ainsi de suite ainsi de suite xamuñu dinañ am ku leen dogale xamuñu dinañ leen agressé ainsi de suite ñooñu war nga leen mën a dimbali parce que am na loo xamante ni nii ci ci compétence su maire la maire warula fab rek jigéen ñi nga xam ne ñoo ne ci koñ bi mu boole leen ak ay mutuelle boo bëggee jigéen ñi nga dimbali leen dangay dangay am say partenaire ñu am seen mutuelle bopp yoo xam ne ñooy koy géreel seen bopp ci seeni gox def fa def fa ñoo xamante ni ñooña yaakaar nañ ni ñooñu ñu jub lañu ñu yor mutuelle bi lu ca dugg ñoo ko xam lu ca génn ñoo ko xam ñoo ko moomal seen bopp kenn du leen taxaw kenn du leen lëjal tey kon ci sa programme am na pàcc bi nga xam ni jagleel nga ko wax nga ko léegi moo di soxna yi tey ñu ci bari dañ naan calebasse ndax am nga ci gis-gis parce que ñu ci bari dañ naan mbir la boo xam ne mën nañ ko soppi ab beneen doxalin boo xam ne jigéen ñi daan ci mën a gën a gis seen bopp. mooy li ma la wax léegi mooy li ma la wax léegi parce que calebasse yi itam. Euh, presque loolu la rek parce que calebasse moom dafay loo xamante ni nii. dañoo xëy xëy rek gis calebasse. mais bu fekkente ni loo gis dañ ko war a moderniser. loo gis parce que tam xam nga nit ñi ñoo amatul jot gu day ni ñëw toog ci benn place groupe boo fa ku nekk di nat ku nekk di wax sa occupation yépp nga yemale ko ci benn ci benn heure il faut être pragmatique parce que nit ki dafay am loo xamante ne ni moo ko war a euh, moo ko war a dimble boppam c'est-à-dire mooy mutuelle bi ma la wax comme par exemple tey bu nu amoon mutuelle def ci par exemple mutuel bi kat am na téeméeri jigéen mais téeméeri jigéen yooyu ku ne am na doom am na ci ñoo xam ne seeni doom jàng nañ gestion am na ñoo xam ne seen i doom jàng nañu leneen ñooñu bu ñu fabee seen i doom def ko ci seen i mutuelle di fa cotiser di fa def di cotiser di fa def bu nu cotiser ba xam ne ñoom ñii kat lii ñu am akas néew. partenaire ñëw na dimbali leen nga boole ne nag partenaire bu leen dimbali ñu renforcer seen kees. mën a fab juróomi nit tibb ca kees ga jox leen ñu dem Dubaay pour ñu ñëwee jaay su suñu jaayee jëdoo seen mais loolu yëpp day ànd ak ak encadrement encadrement lay ànd ak loolu lu amul ko encadrement baaxul loo fi gis lu ne am na encadrement parce que boo bëggee mu jëm kanam da koy encadrer boo bëggee mu am suivi te lépp loo xam ne am amul suivi baaxul lépp loo xam ne amul suivi baaxul tey mu nekk ponk bu am solo waaye itam ci wàllum éducation njàng mi lu am solo la lekkool yi gis nga fi ki nga xam ni moo fi nekk maire itam ci wàllum l'école euh, tey ban gis-gis nga am wala ban ambition ban yéene nga am ngir soppi tey lekkool yi parce que am na foo xam ne seen compétence nag fa lay am. waaw alhamdulilah rabil alamin xam nga loolu nga ma posé lu ma neex na li tax mu neex ma mooy. dama am benn leader boo xam ni dafa am dafa am vision le frère secrétaire général maître Abdoulaye Wade da ko bañ ba def case des tout petits à bas de deux ans ba cinq ans xam nga kooku bëgg na éducation bi amélioré wu par exemple tey bu fekkente ni Parcelles Assainies mais directrice de la case des tout petits fii la dëkk may mën a xumma te ñun amuñu case des tout petits xanaa béy béy ci sa wewu tànk bala ngaa jéggaani fenn yemal ci sa gox ba pare fii dafa war a am case des tout ba pare bu nu amee case des tout-petits ba pare nag xam nga maire yi am na rubrique boo xam ne dafay dafay dimbali jàngalekat yi di dimbali ñiy jàng parce que dafa am loo xam ne boo ko bëggee yemale ci sa bopp rek wala say xarit wala say àndandoo wala nga yemale ko ci ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow doo dem parce que boo xasee doon mère yow ñëpp yaa leen yilif mère mooy yaay mère égal maman mooy ndey ji seex njaaxaanaay la war a tëdde soo xasee dem ba doon mère waratoo ni mankat ñii ay PDS lañu ñoom laay dimbali ñii ay APR lañu duma leen dimbali ñii ay lii lañu duma leen non non non kon yaa ngi koy interpellé moom mais mun a xuma ah en tout cas warula am couleur boo demee ba am benn benn gis-gis bi ñu teg la ci fenn fi dangaa war a am fulla judaay ne nag ku ñëw nga xam ni kii kat dafa soxla wax la lu wóor lu lu tegu nga teg ko ci yoon def ko def li nga ca war a def parce que éducation bi nag bu euh, réew mu amul éducation baaxul te boo demee case des tout-petits soo génnee case des tout-petits di nga am éducation boo xam ne parce que xale yi déjà ñoom soo intelligents soo leen jàppalee tuuti rek ñu dem parce que bourse yaa ngi fi am na ci ñoo xamante ni nee nañu man xaw ma ko nag xaw ma ko gisuma ko dama koo dégg rek ci waa parcelle. nee na nu bourse yi da ngay joxe 5000 francs ñu may la bourse yëguma ko xaw ma ci dara en tout cas bu dee am na c'est pas normal ndax bourse dañ koy maye. bourse dañ koy maye. Ah, parce que ñu ci bari mbirum bourse sax jural na fi coow. Mhm. ci biir Parcelles Assainies mhm. ba ay mbirum plainte daal fi jub. Mhm. ci ñenn ñi nga xam ne tey ay candidats lañ. Euh, kon day wane ni est-ce que kii fi nekk tey maire. Mhm. te mu sampaat ndëndëm. Mhm. est-ce que joxoon na gëdd bu war éducation. ah bu ko joxu ñi nga xam ne ñoo yor seeni doom jur seeni doom ñu def jox seen euh, seen doom éducation doom gëdd parce que nag am na loo xam ne nit ki boo euh, liggéey daal boo ko dee def. am na loo xam ne war na la am na loo xam ne waru la. éducation moom c'est la première des chose santé topp ci éducation moom bu amul cim réew moom a réew kenn xamul. musiba lay musiba naaru laay la waaw. mais éducation am na ay parcelles na ay lekkool primaire ñu ngi fi. Mhm. est-ce que tey anam gi nga xam ni noonu la ndongo yi di jàngee xale yi. Mhm. ñoo ngi koy saytu bu baax si sa gis-gis. ah en tout cas day euh, ñi nga xam ne ñoo jur seeni doom daal ñuy jàngi ñoom ñu ngi saytu seeni doom ndax boo yóbboo sa doom école. soo bëggee mu réussir ëllëg booy boo nga wutal ko feneen foo xamante ni nii bu wàccee dem fa defi cours du soir boo ko deful da nga perte parce que itam maire yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi amuñu benn benn euh, amour boo xamante ni léeg xam nga man dama daan gis maire da daan jekki-jekki rek nuyoo ci benn école wàcc fa du tàggoo def dara ñëw wàcc fa wax dugg ci classe yi waxtaan ak maître yi seet élèves yi seet li ñuy dund ainsi de suite amatul. man de gisatuma ko. ndax danga ko bëgg a jëmmalaat yow. incha allah ci kattanu yàlla. suñu yàlla defee jàmm. ba ma gañe mair bi te dama koy gañe sax ci kattanu yàlla. Ah, incha allah loolu moom dinañ ci ñëw. waaw wàllu senegal day gañe maire bi ci kattanu yàlla. waaw ba tey ñu éducation. Euh, wàllum santé nekk ponk bu am solo parce que léeg-léeg da ngay réere mbir ñu ne da ngay indi malade hôpital maam Abdoul Aziz Sy Dabakh. Mhm. Euh, gars yi dañ naan mbir mi daal dafa doy waar daal ci wàllum santé ci biir Parcelles yi même constat boobu nga def. waaw ah constat boobu ñëpp ko def ndax xam nga ku nekk dangay feebar te hôpital bii rek lañ fi am boo xamante ne ni post de santé bii ci lan am boo xam ne mën nañ faa yóbbu sa malade dégg nga ci mais boo fa yóbboo sa malaat lépp lu mu doon yaa koy jënd. ah bon man yóbbu naa fa sama doom bu jigéen sama taaw bu jigéen mu feebar. tànkam di metti presque man dépensé naa fa presque 2 millions. presque mu amee érésipène érésipène la amee woon. mais faj nañ ko de parce que y a des médecins. mais garab amu fa. hôpital bi amul garab. amul dara amul dara boo ñëwee teg da ngay jënd garab. lépp luñ lay defal da nga koy jënd. man ne gisuma fa lenn loo xam ni man may nañ ko ma ko fa te am na fa presque un mois presque un mois et quelque. tànkam bi di metti ñu liñ ko fajee yépp man maa ko jënd man kay dama lay wax en connaissance de cause maa ko jënd presque 2 millions. témoin nga mu ngoog jë jaay naa ko fa. ci ay garab parce que antibiotique lañ ko doon defal te antibiotique dafa cher. amul dara lu ñu lay may. ba ci seringue bi bi nu lay defalee perfusion bu yàqoo da ngay da ngay dañu koy sànni nga jëndiwaat. kon l'hôpital bi amul dara. dara amul dara dara jaru sax ñuy lim dama ne amul dara yaa a rien là Euh, am na jumtuwaay boo xam ne mën na ko indi doole ak li nga xam ne moom moo jëm ca euh, ca centre ba mm-hmm. mais kon buñ xoolee li nga xam ne moom moo jëm ca maam Abdou mm-hmm. moom maam Abdou est-ce que moom gënut a feebar sax malaat yi maam Abdou gën a feebar malaat yi ndax hôpital bu amul garab kay dafa feebar boobu kay malaat la te du moom dong moo fi ah, mu ngoog ah ñu ngi naan nooraat nooraat amati na nooraat mun naa ñaa koo gis ba ah yàgg na de man de noraat déggatuma ko sax. kon lan nga mën a proposer askanu parcelle tey ci maam Abdou noraat est-ce que tey am nga gis-gis yóbbu ko fu sori. am naa gis-gis yóbbu ko fu sori parce que xam nga. Euh, Sénégal li nuy wax naan dara amu fii dara amu fi déedéet. c'est que da ngay toog fi nga toog naan mënuma def lii lii bu awma ko lii nangam déedéet da ngay dem ca ña nga xam ni ñoo ko yor xam nga ministère de la santé tey jii nga nekk en tant que maire mu yor ministère ba pare te yow doo dem wax ko say doléance yi nga xam ni moo war a am ci sa mai ci sa hôpital deuxièmement daf foog nga am partenaire boo amul partenaire doo dem maire day am partenaire maire day am woyof woyof gu day ni ak mën a dialogue ba mën a wax ak le ministre de la santé mu wax ak yow ngeen ko lii moom laa bëgg lii laa fi bëgg a def dimbali ma ci lii mu seet la mu am def jox la ko nga booleeg la nga mën a jël ci sa budget boole ko ca la mu la jox wuti nag sa yeneen partenaire boole ko ci boo bëggee sa lépp amélioré mais doo toog benn place rek. est-ce que mën nañ xaar kon euh, Adja Kumba Suna Dieng def hôpital Maam Abdou. niveau 2 wala mu démarché ko waaw loolu laa bëgg de mi ngi ci samay projet Maam Abdou moom. Maam Abdou tur wi sax boo sababloo muy ñëw. tur wi boo sababloo rek Maam Abdou day ñëw jàppale la nga defar parce que itam. doon maire ba pare man la man la monsieur le maire rek maa ngi yor titre maire. jëruñul dara jëruñul dara. il faut ñi nga xam ni ñoo tax nga doon maire nga xam seeni mébét xama man boo gisee ba léegi sama sama sama sama euh, sama kii génnagul. programme programme génnagul. ah mi ngi bëgg a yéex de. askanu parcelle ah waaw askanu parcelle ci lay dem suba ngoon ba bëccëg di taataan seeni mébét. di leen ko wax. di laaj li nu soxla ak li nu bëgg di di teg. bind nga. bañ a bind. lu ñu soxla ñoom. bari na lan la. laa ilaha illallah gën a fës mooy seen santé. parce que tubaab nee na la santé avant tout. seen santé éducation jigéen ñi ñoom jigéen ñi ñoom nee na nan am santé am éducation am fu nu xëy mais pas foo teg sa palaat ñu yëkkati la. palaat yooyu boo ko bëggee yëkkati da ngay defar say cantine dugal ci jigéen ñi. dugal ci ambulant yi parce que nit ki mënoo ko nit fii doo fi liggéeyee te doo ko jox beneen place koo yëkkati da foo ko teg. waaye bu ñu la yëkkatee fii ni la demal mbaa ñu ramasser say bagages yóbbu boo ëllëgee doo am feneen leneen loo ah, jaar loolu la ñuy nag nemmeeku ci parcelle ah. parcelle bëri na ay marché parcelle bëri na marché mhm. euh, gis nañ ñuy jaay ci kaw tali bi. Mhm. Euh, da nga ciy xaw a sentir benn désordonné ci li nga mm-hmm. xam ne moom moo jëm ci wàll bi mm-hmm. te marché marché yi de monde de bari nañ mm-hmm. waaye li ñu leen indil ci ay recette ak ressources ndax euh, pare nga pour soppi xar kanamu marché yi incha allah parce que li nga ressources yi nga xam ne moom ngay jëlee ci marché bi da nga koy delloo ci marché bi boo bëggee marché bi baax li ngay jëlee ci marché bi boo ko delloo ci marché bi marché bi baax parce que tam mënoo nit ki rek moom itam ñuy jaay ba ca taliba mais il faut que nga nga nga nga tabax marché boo xamante ni nii ku ci nekk boo ju boo liggéeyee ba pare bala ngaa dem bale sa place ba mu set bu subaa boo xëyee xam fooy teg sa tànk mais am na nu muy demee ñoom ils s'en fout ñoom noonu rek lañ koy bàyyi parce que noonu lañ ko fekk marché dafa am man am naa ci projet boo xam ni duma ko sax divulguer ah déet faaw nga wax ko mbokku euh, askanu parcelle ngir ñu mën a ah parce que ku la bëgg a voté itam faaw mu xam sa programme. waaw ñoom xam nañ sama programme marché ndax man damaa jaay marché wax naa la ko ci commencement ba. dëgg la ajjuma ji nu ji nu daggee euh, marché unité set bi dama fa am ñetti place di jaay légumes. kon xam naa marché bi lu ñuy dund dëgg la wala déet xam naa métti bi ci marché xam naa coono bi ci marché. xam nga lëf bal nga koo mën a faj danga koy xam. xam nga. bu baax bu baax. dama la ni fii jaay naa fi beñe jaay naa fi légume am naa fi kantine ci école ba fii ma waxee yow ni sama bitig a ngi ci suuf kon xam naa li li jaaykat yi di dund. Euh, des fois dañuy naan problème buy ñëw ci diggante mairie bi la. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di délégué yi ndax waxtaan du am. waaw kay ngeen di bëgg a defar dara ñëw forcer ko. du noonu nag nit ki moo boo ko fekkee ci domaine danga da nga waxtaan ak moom. moom laa la wax léegi dugg ci marché laaj leen luy seen problème luy seen soxla lan ngeen bëgg soo demee ba nga xamante xam nga euh, euh, boo nekkee Parcelles Assainies Sénégal ku ci nekk gox ba nga nekk conseil municipal nga ca war nañu la consulter xoot xool yow ci yow ci ci fànn bi ngay yëngu loo ci soxla bu fekkente ni marché bi marché baa ngi fi nga nekk maire mais war nga am planning boo xam ni da ngay dajale euh, délégué Marseille ñoom ñu wax leen seen programme ñu ñëw ba ci yow ngeen toog réunion nga waxtaan ak ñoom soo jógee ci lool woo tailleur yi soo jógee ci lool woo menuisier yi soo jógee ci loolu woo euh, euh, kii bijoutier yi ainsi de suite ainsi de suite inse de suite bu ko defee ñoom ñëpp ku ci nekk di nga xam sa soxla di nga xam soxlaam nga seet la nga ca mën yow boo defaree sa programme ba pare nga woo leen ni leen ah man kat waxoon ngeen ma ni fiil gi fii ngeen ko bëgg a teg waaye su ma sañoon nag ngeen wëlbati fiil gi defaree ko nii ba xam yéen lu ngeen ci xam ndax loo gis bu ca dialogue amul du yegg nit ki day waxtaan man yaay laa maa jur ñëpp. Mhm. kon xam naa ñëpp seen mébét ak seeni naqar. xam nga ñëpp seen mbébét ba tey ñuy dox di waxtaan Adja Kumba Suuna Dieng lañ dalal ci émission gox bi fii ci rajo Rewmi FM mu sant samp nëndëm ci euh, li nga xam ne moom moo jëm ci mairie Parcelles Assainies mm-hmm. waaye ba tey mbébét li bari na ndax parcelle boo ko tuddee dañ naan ñu ci bari parcelle as amul assainissement dañ naan Parcelles Assainies waaye ñoom nee nañ dañoo tumranke assenissement ndax constat boobu nga def ba pare. waaw def naa constat boobu waaye ñoom it war a xam euh, parcelle assainissement bi du compétence su maire bi wante nag da ngaa war a dem. waa est-ce que jar na taxaw du sa compétence rek nga toog ne yàcc. déggoo li ma la wax dama ni du compétence su maire bi waaye wante yow mi nga xam ni yaa fi maire ñu bari xamuñu ni euh, loolu du domaine nu maire mais yow mi nga xam ni en tant que maire da nga war a dem ci ñi nga xam ni ñoo yor compétence boobu waxtaan ak ñoom jox leen site yi nga xam ni. ñoom ñooy indi si euh, dafa am point bas yoo xam ni foog nga dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yor compétence boobu. muy waa ONAS ñu ñu ñëw dimbali la defaral la buñ la defaralee nag bu ko defee yow nga nga fexe noo def ba sa canalisation mën a mën a mën a mën a tegu ci yoon ba bu ëllëg si bi bu tawee ndox du taa mais bu ndox taawee rek nga ñëw ngàcc ko demaat toog wala nga ñëw dugg ci ndox mi ñëpp di la gis mais loolu tamit. am na loo mën a wax unité waa unité 15 ci axe boobu gis nañ li nga xam ni moo jëm ci wàllum ak seen digg ak ONAS. Mhm. dafay metti da ngay gis ndox bi mhm. ba ci Gundar Kamb muy ball mhm. boo leen waxee ñoom ñu ne ñoom ñoo gën a sonn ci mbir yi donc askan yi nekk foofu ndax ñoom mën nañ am yaakaar tey ci li nga xam ne moom moo jëm ci li ni mel euh, métti na niñ koy dundee métti na torop metti na trop ku dëkk parce rek yërëm nga leen ku dëkk parcelle yërëm nga waa unité quinze man de su ma yàlla dimbalee ba ma toog ci mair bi te dama ciy toog sax incha allah ci kattanu yàlla waa unité 15 man maa leen wax ni leen lu ma ci mën dinaa ko ci def ndax assenisement bi foofu c'est pas c'est pas da dangay tànk ndox mi rek dem boo tànkee ndox mi dem boo ëllëgee mu bala parce que dafa màndi foofu dafa màndi te dafay point bas mais lu mu doon doon point bas war na noo mën a am stratégie boo xam ni war nañ ko mën a defar dama lay wax benn benn benn exemple mhm. Ablaye Wade bi muy defar euh, autoroute bi nekk ci euh, euh, Patte d'Oie jëm jëm jëm croisement Cambérène mhm. foofu nu mu daan mel foofa dàqoon na taa foofa da daan taa ba oto yi dañ daan tëmb mais ba mu ca jógee gisatuñ fa ndox te man Ablaye Wade laa mu jigéen lay Wade bu jigéen laa man ci kattanu yàlla incha allah bu nu yàlla mayee kàttan ak fekke ak tal mhm. waa unité 15 dootuñu jooy. jeexale ko ponk yi nga xam ni moom moo jëm ci wàllum tàggat yaram parce que léeg-léeg dégg kuy yootu ne la. ci wàllum tàggat yaram des fois dañ koy fàtte ñu naan parent pauvre ñu bari dañ koy fàtte te moo ne de ndaw lu am solo lay représenté ci gox tàggat yaram itam lu am solo la ndax stade bi nga xam ni moom la parcelle doon jooy bañ ci jotee yàggul de xaar nañ ah, waaye parce bi kat oh, astafurlaa um, uh, uh, stade bi kat dégg naa ñu ni genn wàllu côté bee dafa daan woon xam nga lu lu lu nu war a bàyyi inauguré lu yeggul ah Moussa Sy dafa profito ah man de tudduma kenn dama ni li nu war a bàyyi. waa xam nga tey boo buñ buñ nee inauguré. waaw Moussa Sy moo fi bokk moomeel bi. kon moo ko inauguré man de inauguré lu yeggul daal moom la nu war a bàyyi loo gis lu ne da nga ko war a topp bul topp rek ni man dama war a dama bu ma ko inauguré wul euh, stade bi xam nga moom dafa xam ni moom pare na ci mairie bi loolu moo tax mu jë mu profito ubbi stade bi. te stade bi parewul parewul. stade bi pare. ci des bari na. stade boo taxawee ci tali bi jàkkaarloog ñuy joué jàkkaarloog nit ñi nii ñu ñu ñu toog xale yi nii la ñuy taxawee fab seeni xeet di leen sànni loolu c'est pas normal stade du mel noonu. am nga beneen ay projet yi nga xam ne jëm na ci wàllum tàggat yaram. ñun ndaw ñi waaw bu baax a baax a baax. à part stade bi. am na leneen ah. loo leen mën a. yàlla suturaal ba nu toog ci mairie bi. dina gis beneen beneen euh, gise giseen boo xam ni Parcelles Assainies dina jaaxle ndaxte fii dafa war a vert ba mel ni Casamance parce que loolu fi war a am reboisement dafa war a am dañ koo bàyyi. Ah, bu ñu jëlee dëkk bi pavé ko kay boo dee pavé am na foo xam ni da nga fa war a reboiser doo pavé fépp rek mu mu lépp tàlli rek nii déedéet booy pavé da ngay bàyyi place yoo xam ne di nga fa mën a jëmbat garab mu am suivi du dëgg bu ko defee sa dëkk naat parce que nag euh, pavé yëpp mu wow koŋ ñu def ci ay doo daan yoo xamante ni ni oto bu fa jaar euh, sa par euh, sa sa sa kii naka la tuddeeti sax échappement dak waaj wadd fa tam taxul ñuy wax hmm? pavé fii bàyyi fii pavé. am na ñu ñu bedd daal si pavage yi. Ah, ñu benn ci ñun benn ci unité 10 unité 7 unité 10 unité 8 unité 9. bari na. dañ ko war a reprendre kon ainsi de suite de suite ah, en tout cas de pavage bi de moom féete na côté féete na côté de. est-ce que kon pare nga kon pour yokk subvention ASC yi parce que. Euh, kaay ma wax la nag ay <laughs> ASC yi kenn jotu sa xaalis. jot nañu ka kii de nu mu tudd chèque man sama doom président ASC la. non attends euh, maire bi nekk fii. dama ni jox na leen ku ne sa chèque waaye saa yu ñu ñun xaalis amu fi xaalisu ASC amu fi sama doom président ASC la lu waral loolu. ah loolu da xawma ci dara en tout cas jox nañ leen ko de avant ci campagne bi muy ubbi daal ku ne woonan la jox la sa chèque waaw <laughs> chèque boo xam ne c'est kayitu kese jox na leen seen chèque de waaye man de gisuma ci be kenn dégguma kenn ku ñu jot na xaalisam ñii danoo jot ñii jotunu xam naa ne nag ña ànd ak moom moom xam naa war na noo jot da ni tas nañ ASC yi ngir mbir ah. politique. voilà mais loolu du yoon ASC yi ñi ci nekk ñëpp apolitique la ñu war a def dañoo war a apolitique tous les ASC mais léegi maire bi ku ci nekk ASC bu ne dugg na fa. fu nekk wax na fa ba nga xam ne ASC bi ñii dañoo ànd ak moom ñii àndunoo moom. diviser na ASC. day diviser ASC yëpp ASC pay ASC yëpp a diviser wu te war nañ soppi li ni mel. lépp la ñuy soppi lépp dinañ ko soppi parce que xam nga maire bi dafa war a nekk fii ci kaw yeneen yi nekk nii ci suuf bu ko defee yow mi nga xam ne yaa nekk ci kaw ngay dimbali ñi ci suuf ku ci nekk la la war. ca moom nga fexe ko def man loolu laa xam ku bëgg a dimbali nit Adja Coumba Souna Dia euh, ñuy dox élection yi campagne bi commencé ay fan lañ toll tey ndax tey li nga gis dal na sa xel yaa ngi ne danga gañe élection yi gis nañ fi candidat bokk moomeel bi nee na sampaat na ndëndëm Moussa Sy am na ñeneen mhm. du ma lim mhm. jukki si tuuti ki nga xam ne moo di premier adjoint bi mhm. di ki nga xam ne moo di Mamadou Wane candidat la Mamadou Gueye Moustapha Kane liste yi bari na nga ne yow dangay ngay gañe fooy jaar xam nga nag xam nga loolu nga ma wax neex na ma de fu may jaar ba gañe nit ku ne moo xam lu muy toje bopp jën a xam te ñooñ dama leen a jur maa leen jur maay seen yaay. da leen gën a miin yoon bi. bu baax Parcelles Assainies 79 la juddu ma ñëw fi 80 bi ma fi ñëw amul tali amul làmp amul dara 5 heures laa daan tëj sama bunt bu sama waa kër jàngee ba wàcc dama leen a joxoon signe bu may fëgge pour ma mën leen a ñemee ubbil kon xam nga ne xam naa parcelle de yu jëkk yeeg yu mujj yëpp fi la ma fekk ñoom ñii ñëpp ku ci ne bi ngay juddu fi la ma fekk. ñoom ñëpp samay doom lañu xanaa duñ dugg ci kaar bi nag ñoom góor ñi ñu toog man mii seyaan seen yaay ma ñëw ma ñëw taxaw ñu bàyyi ma ma taxaw. dañ lay xajal toogukaay bi bëreet jox ma ma toog. waaw ah, xob la ah, noonu lay demee di dama fi ami xob ndax nag miin naa paasal de te yàgg naa fi de te jëf naa fi bu baax mhm. te ñépp samay xarit lañu nag koo ci gis am na ñoo xam ne sax xam nan ma te man xaw ma leen. yàgg naa parcelle. kon miin nga yoon lool te 74 ba tey damay politique 74 ba tey damay politique face ba parcelle. léegi suñ la déggee parce que élection yi am na solo goo xam ne ñenn ñi dañ naan premier tour la 2024 mais du ñu dugg ci détail boobu mais. Euh, li nga xam ni moom moo jëm ci parcelle dañ ne kii gañ parcelle gañ Dakar te sa candidat Dakar mooy Doudou Wade ndax jàpp nga ni euh, dana yomb Doudou Wade Dakar Barthélemy Diaz Pape Diop ni nekkoon meeru Dakar bëggaan na tey sampaat na nëndam Mame Mbaye Niang Abdoulaye Diouf Sarr parti au pouvoir te gars yi sax ñoom nee nañ gagné nañ élection yi ba pare parti au pouvoir. <laughs> Ah, waaw noonu la booy dem ci làmb ji doon damay daanu ña nga sëqal ñooy xam ne dangay daanu ña ngay jàkkaarlool ñooy xam ne dangay daanu xam nga li ma jaaxal mooy li nga wax léegi ci gañ parcelle gañ Dakar dëgg la est-ce que xam nga ni candidat yi nekk ville yëpp ñu ngi parcelle bërki démb fi ñoom ñëpp danoo dajale ku ci nekk 19 sections communal yi ubbee parcelle menn man seul man dong maa ci dem ak sama bopp te caravane te te mitin bu ma romb rek tas nga. ah waaw. lu waral loolu. sama mbooloo rek ak sama fulla ak sama fayda xuloowu xeexuma jàmm rek laa bëgg jàmm laa pee. dinañ ñëw ci jàmm jooju sax. waaw alors euh, Doudou Wade nekk seen candidat. waaw mairie bu Dakar est-ce que est-ce qu'il pèse lourd ah, d'abord. ah pourquoi pas. ah Doudou Wade rek Doudou ku ne xam na ko Doudou Wade moo tere ñëpp nelaw Doudou Wade moo tere ñëpp nelaw suba laa koy recevoir fii man suba laay recevoir Doudou fii parce que Parcelles Assainies gi dafay base boo xam ne ku ko sàggane doo dem ki gañ parcelle gañ Dakar Abdoulaye Wade da ko waxoon ak 88. te pare nga pour dalal xelam. laay laay la laa. moom xam na ma bañ a dalal xelam man damay gañe fii incha allah. kon ñii di tab di di fëgg seen dënn du ñoom non ñooñu dañuy dañuy kii rek dan may jàppale. dañuy xumba waaw non dan may jàppale man maay seen yaay man maay seen yaay xam nga yaay moom day am laa biir ci ci ay doomam moo tax ma bàyyi leen rek nii ñuy kii ak kii. Abdoulaye Diouf Sarr est un Diouf Sarr ku ko xam fi ku ko xam. Ah, suñ ko xamoon suñ ko xamoon kon kon kon Amadou Ba du takk ndiggam da koy bàyyi mu dem ku ko xam Diouf Sarr yoof na dem yoof gaña yoof tey euh, am cadre unitaire de lislaam ñu taxaw ne dañuy biral benn charte ngir euh, wattu li nga xam ni moom moo jëm ci violence. Euh, dégg nañ ci wala sax soxam euh, war Soham Wardini nekk maire bi nga xam ne génn na bëggaat. moom signé na. ne moom lépp lu jëm ci jàmm bokk na. ndax parti démocratique sénégalais wala waa wallu Sénégal. Mhm. pare nañ pour xaatim loolu. mais xam nga jàmm ñëpp moom lañ bëgg. jàmm moo jëkk jàmm moo mujj li ma lay wax rek sawaam yaay la foog mu bëgg jàmm yaay day bëgg jàmm ci njabootam ñun jàmm rek la nu bëgg xuloowunu xeexunu demunu violence ba nu commencé ba tey dama nekk cadre boo xamante ni ñoom ñëpp jàmm leen bëgg te man ñi ma àndal ay cadre lan ñi ma àndal sama staff ñoom ñëpp ay cadre de haut niveau lañu xuloowunu xeexunu jàmm leen bëgg civilisation mat xëy fajar wote ji gañe ñëw toog. mais noo gisee violence bi door nañ campagne yi nga dégg jàppante yi Parcelles Assainies sax amoon na fi. Ah. cortège ñi nga xam ne ñoo di goo fay ak waa Yewwi Askan Wi bañ fi demee unité 11. waaw euh, Dagana nemmeeku nañ ko fi. Mhm. ak yeneen euh, bërëb yoo xam ne nemmeeku nañ ci mbirum violence ndax ku bëgg. ñu fal la fit nga war a indi. déedéet parti au pouvoir de moo fi indi violence soo bëggee ñu fal la kay doo indi violence parce que boo indee violence nit ñi ragal dañ lay ragal de ñun de bu xeexunu xuloowunu dàggasante wunu xeer jàmm la ñuy dox bu nu xëyee dox sunu doxu mbokk dugg ci dëkk bi kër gu ne ñu dugg fa taataan seeni voix ñëw toog def suñu évaluation ku ne tëddi ñun daal jàmm lañ bëgg jàmm yàlla na nu yàlla may jàmm ndax jàmm daal moo xaj ci lépp mm-hmm. jàmm daal mooy jëkk jàmm mooy mujj jàmm mooy mujj lu am solo la euh, ñuy dox coronavirus dab ñu mm-hmm. ba ñuy wax sax omicron mm-hmm. ñu bari naan ana ministre de la santé mm. <laughs> ministre ah, ndax mi ngi fi xanaa ndax mi ngi fi ndax ministre de la santé ministre de la santé est-ce que talati na santé bi mi ngi mi ngi lijjanti mairie Dakar kooku kay talatul santé bi ku yóbbu rek jóg ci sa bopp. mi ngi dox de parce que cas yi wàññeeku woon nañ léegi gis nañ yokku na. yokkuwaat na waaw te ñu ngi ci campagne. waaw jaxasoo bi jaxasoo bi. Mhm. ah doy na waar de ñun daal yàlla nañu yàlla musal ci ami la tudd xaw ma micron. omicron bi daal yàlla nañ ci yàlla musal may nu féex daal ak wér gunu wote jee li ñu cërale woon ci waxtu daanaka jeex na dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk auditeurs yi euh, ñun ci suñu wàll mu nekkoon mbégte lool tey dalaloon la tey ci émission gox bi mm-hmm. ah alhamdulilahi rabbil alamin a jërëjëf kontaan naa lool ci dalal bii ngeen ma dalal maa ngi tàggoo fii nag tàggoo bu dul tàggoo di ñaan yàlla seen rajo bi yàlla fulandiko ba mu gën ci rajo yi barki Seydina Mohamed di ñaan yàlla nag Parcelles Assainies gi ñu vote ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ci alhamdulilahi rabil alamina ñu bañ a sàcc élection yi ndax sàcc ah, élection da ci da ah, man lépp laay njort de lépp laay njort lépp laay njort ndax nag damay vigilant vigilance bu metti lay nekkee maag ñi ma nekkal ak képp ku bokk wallu Sénégal ndaxte nag sam nee na boo bañee ku la bett dangay fàggandiku yàlla na ni yàlla defal jàmm daal may nu taw féex maa ngi nuyu waa Parcelles Assainies bu baax set ba vingt 26 di leen wax ni sama candidature bi dama bëgg ñu soutenir ko surtout les femmes et les jeunes surtout les femmes et les jeunes. man maay candidat ndaw yi man maay candidat jigéen ñi ndaxte nag man ci sama wàllu bopp jigéen laa kon jigéen ju fi nekk rek dafa war a solidaire woteel sa nawle jigéen ndaxte jigéen ñi léegi danoo sonn ci tàccu yi sonni nañ ci mobilisation ak sandwich yeeg mille francs yi ak cap yeeg mille francs yi ak mbubb yeeg 2000 francs loolu soppeekul ah ñun waa wàllu Sénégal soppi nañ ko ñun de defuñu ko ku nu ànd rek xamal ni kii dafa gëm li mu nekke le 23 janvier yaay gagné. incha allah ci kàttanu yàlla maay gagné. mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun foofu la ñuy yemalee li nga xam ne moo jëm ci émission bi sant ki nga xam ne moom moo di Bachir Cissé moom mi nekkoon ci xarala gi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo mi FM ci émission gox bi.